Pour vous aider à réaliser vos rêves, Digital Store vous propose sa nouvelle gamme de smartphones et tablettes sur Android les derniers sur le marché digital. La tablette Core T4, le smartphone Core X4 et le téléphone flottant Shark X3 sont des outils qui vont transformer votre quotidien. Dotés d'une autonomie suffisante, résistant aux chocs, étanches dans l'eau, ces produits vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles hors de votre bureau. 33 ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 et à Sébédioune sur la Corniche 33 823 77 87. Digital Store, améliorez votre quotidien. ñaar ñii ñaar ñii dafa am liggéey boo xamante ne bii ku tedd moo ko sant moo ma koy ànd ak ñoom. lu Cheikh Gànn mii nga xam ne kenn waru koo sàllawlu ndax xasaayid yi hakaza moom jeexal nay wax hakaza boo koy firi mooy voilà noonu la mooy absolu mooy tout à fait mooy nii la deme mooy nii la baaxe mooy nii la gëne ndax itam nag booy nettali ku tedd ki ni muy waxe ak gan ji mbindeef ah ku la teewlu dem sëriñ tuba ni muy waxe ak yonent bi bu ñu jàkkaarloo woon daf naan waqet daw won ko gannaaw ma du Mbàkke wax loolu loolu moo tax antar imam rusuli xad jaa annahum tala xawka fi l israai wal salla labista siabal majdi wal wal hula wa fiika min al axlaaqi maa ahjazal kulla du ko fa xaar bu ñu jàkkaarloo woon nii du ko fa xaar mu koy wax hmm? am na sama benn doom boo xamante ni bi Ablaye Dieye ci doom yi Cees yi la ma nga nee toog moom laa woon fee taxaw moo ne bokk na ci ñi joxe titre foncier bi mu bàyyoo ma ma doomoo ko ma bëgg sëñ Modou Ngom ak waa Thiès gépp ak Chérif Ahmed Saloum ñépp am loolu e nga xamante ne bii ñoo di doomi dëkk biit maa ngi leen di xamal ne Hizbul Haq li tax ma ciy liggéeyloo Mamadou lamin seen waxtu Hizbul Haq mooy waaja a jot ku ko fi ni kupp itam demee ba ca kanam nga xam ni moo fi sës loolu yàggatul ñii di waa asaabul jànna nag ma santoon leen ñu organiser ko fii te Mamadou Lamine ñaa jiite leen di moo àllim benn bayt rek laa wax ak ñoom ca bam sa chin madda liyal xaqul mubinul xaqa wa yaral ulamaa raqa ku tedd ki moo wax ni vérité absolue moom la ko suñu borom jox bale les savants yi ñu choisir bu ñu demee ba doon savants yi ñu tànn ci lañu koy soog a soxla ñu ñëw mu yéege leen léegi nag doon projet boo xamante ni bii almuntaka laa ko tuddee almashruux lil muntaka laa ko tuddee waa état bi di ko tànqamlu ma rus ci lool ndax ki ma ci tudd aw turam bu dul woon dara yitam waaye du tax ma bàyyi ku tedd ki nag boole gi ma boolee ñaar ñi mooy suñu projet boobu ñu saytul ko sunu bopp ak mburit yépp da nga may sa nanga ko xamal ñépp waaw may sa sëy li tax ma wax ko ko ku ko xam-xam ko ci xasayit ak jànkati xasayit yi waaw ma bëgg projet boobu maa ko wutal directeur du projet muy Cheikh Gana mi son adjoint di Hakaza mi projet bi seenu projet la ca war ci taxawaay dinañu ko waxtaane bu ma delloo soobu ñu xam ne projet Al ñoo koy financer suñu bopp yaakaaruñu ci maki nii Idrissa nii Demba nii Jogoy ma ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw weccat nag du ko financé milliards moo koy financé te day am di ku li chey in ajal am na beneen ndax xadd fakk kabala moo xew boobu 287 milliards moo koy financé ca kanam ma ni wóor na Ahmadul Xadim bu ñu continuer ne dañuy tànqam dañuy tànqam lu projet yooyu fukki weer ak juróom bu ñu ko fi amaatee ñu xam ne kenn du ko tedd ki ku dul ko tedd ma ne yërëm nañ leen lool surtout ñoom ñaar ñoo ñëw dama ne leen woon sax dama ne woon damay fexe ak njàmbaar ba duma leen tudd waaye mënuma ko mu di Macky ak Idi mënuma leen a ñàkk bañ a tudd Idi fii la juddoo doon fi lim fi doon Cees def fi lim fi def mënu ma ko ñàkk bañ a tudd Macky ma am fu ma jaar moom ku ci ne dafa am fu ma jaar ak yow waaye seen tànqam lu gi ci samay mbir ay ree dama ciy jàpp dañoo comprendre rul moo tax duma leen reprocher dara li ci kanam rawuti bët retrouvaille bi salué naa ko lool waaye nag bu mu yem ci ñoom ak seen intérêt nañu xool l'intérêt du peuple sénégalais jàmm laa leen yéene moom lañ ma yéene waaye soppi dëgg dëgg soppi dafa jot waxuñu rek ñoom ci seen biir waxu rekk ñoom ci seen biir déedéet soppi dëgg dëgg soppe dafa jot lan mooy dëgg dëgg soppi mooy fu dëgg ne koŋ-koŋ contraire mooy dëgg bu dëgg fëggee buntu ubbil ko dëgg la fale ku fa raw bu njëkk dañu naan Touba néew bu fa dugg raw sàcc bu fa dugg raw Touba nag yenn saa yi ñu yóbbu fa néew malaayika yi toxal ko yóbbu ko feneen man Modou maa la wax loolu yenn saa itam nga sàcc fa te doo raw waxi wolof la rek Euh, xam naa Madieye Johnson ak euh, Mamadou Sène professeur Sène wax dëgg yàlla xam naa dañu may baal parce que maa bañ timis ji fekk nu fi loola tax moo tax may lépp seeni wax ci beneen jataay bu ko defee ñu bàyyi tuuti xakasa tëjal ñu bu ñu tëjalee leneen la ca des nag wax dëgg yàlla kulla yawmin huwa fi sha وقبت كل فارغ وشرخا وقبل سؤال ربي لسي بيوتا تلقى كلامي ونيتي وفعلتي وجمعت يا من كفاني سوء ودروا سكا كفاني حفيظ مانع جملة النداء ولي خاده أحبابا بوصول نصا كتبت وخدي شكرا بالغاتبا لمن حبه عنك الكلي زرزادا كرمته وفقد الكل يا خير محسن عليك صلاة وأخجل المسكا كربي يا مفتاح أني جلوتها وقبل الإذا ستتح وجلو الإفكاح